salaamaaleykum sama gaay est jar na may wax ñaata Assane Diouf ñoo taxaw fii dama bëgg ngeen jox petit Antoine message bi le petit Antoine nee leen ko ñun duñu daw duñu dellu ginnaaw jëlal ñu Amérique du tax ñu noppi dugal ñu ci kaso bi du tax ñu noppi mais dama leen di fàttali gis na xam xam naa xale yu bari ñu ngi fii mais xamuñu histoire place bi bu ngeen gëstoo nii gis ngeen bâtiment bële moo nekkoon siège u papa Abdoulaye Wade mars bleu bu leen kenn tere bu leen kenn tere mbedd bi te man nii rek waxuma Ousmane waxuma ñuy toog man rek bu ma nee woon gars yi aywa jël leen yoon wi ñëla taxaw ci kanam duñ ci mën dara sama gars yi dañoo cibb xorom Fatick ba xorom amatul Fatick léegi xoolal ñoo ngi ci liquide liquide bi laa wuti woon lagros liquide bi parce que il faut ñu sangu ko nit boo ko dumaa nangu laay duma mbaa mu naan non duma yi fan la ndoom bay jaar da ngay wut xorom sotti ko ko mbaa bineegar te loolu moo ci des xoolal li ma bëgg a wax yëpp du ko wax mooy bu leen kenn yëpp ba pare xoolal par force la wax leen ko par force la yeewi askan bi par force la dañuy dem élection par force petit Antoine day démissionner par force Macky Sall non troisième mandat par force